ñun jàmm ñu tax a jóg xam nga ni boobu bu la jàmm taxee jóg vraiment ku ca nekk ku ca nekk war nga caa def jàmm jàpp ci ndax jàmm ci la lépp xej ñu daal fekk nañ fi nit ku baax ñun ñëpp ànd association collectif de communicateur et artistes apéris di président Macky li ñu tax a jóg du daara lu dul dajalewaat njabootu président gi rek rek ñu nekk ci jàmm ndax ndax Sénégal am na yeneen urgence yu dul ay këréel urgence bi mooy nekk autour du président pour son projet bi nga xam ne moom la am ñu réussir ko te ki ñu fekk fii tey mhm. jàngal nañu lu bari xam nañ lu bari loo xam xamuñ ko woon sax ci mbir mi kon donc ñu ngi sant yàlla vraiment di julli ci yonent bi di sant sénégalais yëpp di ñaan kilifa diine ñu ko ci ñaan ndax réew ñu jàmm fi xej mhm. ñun daal loolu mënuñu tax a jóg ñu ngi ñu ngi ñaan Farba Ngom moom ñu ngi koy xaar xam naa ne nag comme maire la ak tabaski bi xëy na du am jot xam nañ ko c'est notre frère il va nous prendre ñu waxtaan ak moom mais daanaka suñu mission yàlla dimbali nañu ci ñu ciy sant yàlla bu wër a bër wër ñaar ñi fekk gu ñu ay taalibi sëñ Tuubaa lañu yu wër dañuy leeral ne Moustapha Cissé dafa am ñoo xam dañoo changé suñu wax te Dakar Actu bii ñu ngi leen di gërëm mën nañ ko fay waxe mu leer ndax ñëpp leen di déglu Moustapha Cissé Lo raamalul kenn Moussa Soro dañoo dem mu ne man dey teeluma kenn dara jégal naa ñëpp baal naa ñëpp kon xam nga ne ay yenn change waxi xeju fi mhm. te ñun suñu nawle la suñu kilifa la suñu xarit la suñu lépp la loolu daal moo doon wax ngeen baal ñaax bu soobee yàlla yonent bi mhm. ñoom ñëpp dinañ daje autour d'une table mhm. autour du président de la République ñoom ñëpp incha allahu rabbi président loolu la soxla réew mi foofu la toll yaa xam mbay mi président a besoin de a besoin a ñoom ñëpp ku ci nekk am na mérite ci parti bi ku ci nekk am na mérite ci réew mi li am solo mooy dajaloo doon benn say wondoo yëkkatiwandoo xàcciwandoo dóorandoo